foofa yàllaa koy aar mm-hmm. masjidul aqsa mm-hmm. na mu màggee mm-hmm. yàllaa koy aar jullit duñ ko aar yéefee duñ ko nangu yàllaa fa denc ay yonent moo koy aaral boppam ñoom lañ fa bëgg du fa am gis nga bu leen jullit yi bàyyi woon duñ ko jël masjidul aqsa la fa war a nekk dana fa nekk waaw la fa war a nekk dana fa nekk kenn mënu ci dara lu fa war nekk du fa nekk yàlla lum newul wa ma tashaa'uuna illaa an allah yàlla nee na du leen lu leen neex du am li ma neexay am kon looloo neex yàlla wa ma tashaa'uuna illaa an yashaa allah rabbul aalamiina man maa moom jaami lu leen neex du am li ma neexay am kon kay jeex na looloo neex yàlla yàlla na ko yàlla jeexal si daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alors Oustaz mën nañoo dugg fi nga xamante ni moom mooy euh, langum politique euh, jamono yële si ginnaaw yaa ngi doon ñaan ngir ñu may taw feex ki nga xamante mooy euh, président Ousmane Sonko waaye gis nañ ni li nga xamante mooy listu parrainage bi léegi tey ñu daal di bloqué lu ni mel si mois de décembre daanaka ñu ngi si mois de novembre jege na ba tey joxe guñ ko li nga xamante ni moom mooy listu parrainage am ngir mu xam ndax dana bokk si élection présidentielle waaw wala déet. kooku yàllaa ko xam su yàlla ne dana bokk. dana bokk bu yàlla ne du bokk du bokk ñii atti ñépp dañuy wax ci waaye bu yàlla ne dana bokk dana bokk bu yàlla du bokk du bokk ne ko gëmee noonu ñu gëmee ko noonu ñi atti gëmee ko noonu ñu ne ci réew mi gëmee ko noonu su yàlla ne dana bokk muy jiiti réew mi kenn mënu ko tee bokk la fa muy jaar ba dugg sax doo ko xam buy fay bu yàlla ne du bokk fa muy jaar ba du du bokk kenn du ko xam yàllaa xam kii doon président wu Sénégal yàlla ko xam bàyyi leen daw di njëkkante lu dul loolu loolu jot di njëkkante loolu jot jaru ko yàlla moo yor lépp tuutil mulka man tasha wa tanzaul mulka mi man tasha wa tu'izu man tasha nekk yàlla ko yàlla nee na maay may nguur ku ma neex maa koy jël ci ku ma neex maay teral ku ma neex maay teddil ku ma neex maay toroxal ku ma neex ndax yiw yëpp sama loxo la ne kon kay jeex na nañ bàyyi ci loxo yàlla rek yi nga coow lii lépp lépp lépp lépp ku yebu rek bàyyi ci yàlla parce que yàllaa yor mbiri yàlla ñu moom mooy doxal lu ko neex ci ñun lu ko neexul du dox lu ko neex mooy dox nañ ko bàyyi yàlla waaw ah, yàlla moom lu ko neex dana ko def incha allah su ko neexee Sonko dana jël parrainage am su ko neexul du jël parrainage am ko neexul nag ah mbir maa ngi noonu su ko neexee mbir maa ngi noonu waaye bu neexee yàlla ñëpp lay neex nag bu koy neex muy mu ñuy neex waaw ndax bu ñuy naan woy àllo garaawu laaj nañ ko jox doo ko doo doo xam kañ la waaye bu ñuy dër lànk lànk lànk yàlla yàlla àndul yàlla lu mu ànd mu am lu mu àndul du am nañ ko bàyyi yàlla rek a liir bi mu jëlee initiative wax ni ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko dañ ko war a jox li nga xamante ni boobu yëpp dañ leen dañ a changé mm-hmm. indiwaat ñu bees ba mu lëg ba ci kanamu sénégalais yi ñu mel ne mm-hmm. dafa mel ne daa am ko dafa mel mm-hmm. ko a fexee ki nga xamante ni mooy candidat boobu ki nga xamante ni moo wax loolu ñu bari ak ci nga xamante ni ñoo nekk xam nañ ko ci ki nga xamante ni mooy président Macky combat boo ñu ko waaye laluñu ko laluñu ko président Macky Sall maa ngi koy ñaan mu baal Sonko coow li coow li coow li na ko baal président makisal Sall maa ngi koy ñaan mu baal Sonko ki ànd ak moom wax ni dañoo war a jox sonk listé parrainage am wax ni dëgg xam nga lu tax mooy ñu seeti yàlla parce que ñu ngi défini bu bu ko jëlee dana gagné niñ seet yàlla ba xam nañ seet yàlla ba xam parce que bu ñu seetee yàlla dinañ ko gis waaye nag boo gëmul yàlla doo gëm yenn boo gëmee yàlla gëm yenn yi parce que wax loolu dafa gëm yàlla waaw kon nag président yi daal moo yor lépp moom daal nañu dimbale na ko baal man nag faru mag Sonko faru mag Samba faru maag Demba dëgg rek laa faral yàlla rek waaw lu yàlla rekk wax man loolu laa na ko baal wa an taafoo xayrun lakum yàlla nee ngeen bale moo gën ci yéen de yàlla ko wax ci alxuraan ngeen bale moo gën ci yéen waaw ndax tooñ ngeen ma tooñ yoo xam ne su ma leen baalu du ngeen mos a aljana kon na ngeen bale moo gën ci yéen nangeen ngeen bale wa an taafoo xayrun lakum baale leen kon maa ngi koy ñaan mu baal ko na ko baal du ko wàññi dara moom jeexal na léegi mu dem ne ko baal waaw parce que itam bu ko deful itam amul njëriñ yàlla defal na ko ndam ba pare defal na ko sutura ba pare defal na ko teraanga ba pare loolu bu mu ko yàqaat bu mu ko yàq ci sonk waaw bu mu ko yàq na ko baal ngir yàlla ak yonent bi na ko baal wa an taafoo xayrun lakum ngeen jéggale moo gën ngeen bañ a jéggale yàlla ko mhm. wax ci ah, ragal ko ragal yàlla moo gën parce que ragal yàlla moo gën ragal ko bu ñu ragalee yàlla baax na bu ñu ragalul yàlla mu nekk suñ coono nañ ko ragal rek moom yàlla. waaye defe ne buñ ko euh, moom liste parrainage buñ ko joxee dañuy gagné dañuy nangam nangam yooyu yëpp du ci am nañ ko jox rek moo gën a wóor moom Macky daal na ko baal rek na ko baal na ko baal na ko ko baal àq seet diggante moo ko boromam baal ko wa an taafoo xayrun lakum wa an taafoo xayrun lakum wa su ngeen balee moo gën bañ a bale kon nag na ko yàlla na ko baal loolu rek ko ñaan mane ma ne ku leen fal yëpp gannaaw yàlla ku leen fal makee leen fal make mën na leen ñaan ki leen fal mën na leen ñaan mën na ne leen dimbali leen mën nag léegi ngeen bàyyi Ousmane Sonko mu dem yoonam dimbali leen ma ngeen bàyyi Ousmane sonk mu dem yoonam ndax yàlla nee na ma bale moo gën ma bañ a bale wa an taafoo xayrun lakum waaw yàlla nee na ma bale moo gën ma baña bale kon nag baal leen ma ngeen may ma ngeen bàyyi Ousmane Sonko ñu bàyyi ko moom moo leen fal di comme dàqoon te da nga lànk comme dàqoon da lànk da ngay toog kon kay comme ñaan da ko may <laughs> comme dàq doo lànk di ku dàq doo lànk naan ko damay toog man article laa boo toogal bu weer dee ba xam fooy fay ko ah voilà ah, ah, kon pare c'est ah, ñu ngi lay jaajëfal bu loxo baa ngi ko def <laughs> di la di la di la ñaanal jàmm suñu borom defal la tawfeex yokk la bari bari ci barke yonent bi looy tàggatoo mooy lool rek na ko baal rek na baal Ousmane Sonko na ko baal xaj na ci moom moom moo xajul ci Sonko waaye Sonko xaj na ci moom ki xaj ci yow na xajal ko ci sa bopp waaw isa qila lakum tafassahu fil majlisi fa yafsahillahu lakum ki xaj ci yow xajal ko ci boo ko ci xajalee yàlla dina la xajal ci aljana kon nag ne ko xajal mu dugg foofu rek waaw mu jéggal ko amul problème loolu rek laa koy ñaan ñaan waa réew mi itam ñu dal kenn ku ne jàpp ne yàlla bul nangu mu def la sa otage mu jàppale otage parce que yàlla ku dof dof lu ba mu jàppale otage danga nga dugg waaw kon nañu góor góorlu ñun ñëpp di ñaan yàlla tey moytu lu bon tey def lu baax tey góor góorlu man daal loolu laa bëgg ci réew mi loolu laa ci xalaat loolu lay sama xam-xam